bi li ci yéene kaay kee la Ahmed Aïdara bismillah après day ah dee na inna lillahi wa inna ilayhi rajiun réew mi quotidien corona ba day moo yóbbu Hissène Habré waaye nag jàppal ne danañ ko denc ci Sénégal gi la bu ñu sukkandikoo ci soxnaam si di Fatima Raymond Habré te ci benn clinique lay jëy ne jàngoroy jooje Le Soleil yéene kaane bu ñu sukkandikoo ci administration pénitentiaire ba day ñi ngi dénk kasoy waaw nee nañu doomu jàngoro joojee kon Hissène Habré jëleewu ko ci kasoy de déedéet ministre de la justice de maître Malick na Sénégal daal def na lu ne ngir njabootu Hissène Habré la sursoané clinique du Cap waaw nekk ci booru kaso Cap Manuel gii la Hissène Habré nekkoon waaye hôpital principal bu Ndakaaru day fa la ko mujj defee fa la mujj faatoo ci juróom-ñaar fukki ak juróom-ñeent di soixante-dix-neuf waaw nee na ñun dañoo fas yéene woon bu troisième vague bi jeexee ñu génnee Hissène Habré direct news ne ko waaye bilaay yàlla du nit te nit ñi tam duñ yàlla bokku ñoo moom programme yàlla daal di koy faf jël Alioune Tine ñu ma ne Habré dee Barthélemy si ñenn ca ñoom day yàgg nañoo yëglu waaye nag gis nga malheureusement justice bi ci déglu wu ñu woon yéene kaa gi ne Hissène Habré moomee daal dinay fekk nag Idriss Déby allahu akbar la ilaha illallah moo tax gouvernement wu Tchad boobee doomu Déby ba jiite waaw daal dinañuy caale kon njabootug Hissène Habré ga waaye ña xeex ak moom dañuy continuer ne xeex bi ba léegi Hissène Habré day corona ba yóbbu na ko tribune yéene kaay waaw nee nañ la woon wala njuuma la woon 24 heures yéene kaay ne Hissène Habré kay ndaanaan la woon héros africain dem na ndeysaan histoire ba jeex na Dakar Times ne waaye ci ngor dignité rek la Hissène Habré demee laa la wax le témoin yéene kaay ne mbir daal ñëpp la soke laa la wax ñëpp la miti deewu Hissène Habré bi réew mi quotidien ne waaye gisee kilifa yi Sénégal waaw buñ tëddee duñ nelaw de déet évidence yéene ah, nu ñu def parce que de ñoom lañu ñu tuuma laa la wax Abdoul Mbaye ci critique yéen kaay ne c'est normal parce que ci boppam kon dafa wor mbootum gàddaay liñ naan gàddaay asile yokk gi la wor maître Malick Sall waaw nee na déggoo leen ma de président Macky Sall daa naroon a libéré après kii di Hissène Habré ak lam yi ñu lay takkal bracelet électronique waaw réew mi quotidien ne dama ne Macky Sall ci boppam daa nangu loo xam ni Abdoulaye Wade da koo bañoon direct news ne loolooyu Diouf ak Abdoulaye Wade waaw mais ñaata at ñu ne duñ ko delloo réewam extradé ko waaw te at bi tam duñ ko amal Macky salla ko nangu de Vox Populi ne pourtant nguuru Macky Sall gi day ñi ngi jéem a wane na ñoom daal seen ginnaaw ba nang buñ tëddee nelaw réew mi quotidien ne mukk ci àddina nguuru Macky Sall gi lee bu ñu tëddee duñu nelaw duñu am conscience tranquille de Serigne Saliou Gueye ci la témoin yéene kaay waaw nee na ñoo ko atee tëj ko ñoo ko rey ils l'ont condamné ils l'ont exécuté allahu akbar la ilaha illallah la ilaha illallah ñii dee buñ tëddee duñ nelaw nelaw te duñ nelaw tamit ndax inondation yi lée Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures waaw nee na xanaa xamoo leen na ndox mi daa simmi nguuru Macky Sall gi laa la wax régime fay fay geeg Sall Sall gi wane ne carrément dañoo incompétent xamuñu dara ba dara booloo jeex laa la wax parce gis nga Macky Sall ak ay ministre am ak ay directeur li nekk seen ruu gi yëpp mooy ay milliards yu ñu dajale rek milliards yu ñu dajale duñu wax lu dul ay milliards yaakaar nañ ni bakkanu africain lay jar wala benn saaku ceeb bu ay élection jege see dégg nga de yow weeru juin 2021 nan la assemblée nationale yaay booyoo naan day génnee benn rapport te loolu ma ngi koo commandé depuis octobre 2020 naan nañ bagage yeeg ñang ñang patiti patata man Mamadou Lamine Diallo ma ne leen ba weeru septembre waaye ndox mi wane na ni Macky Sall waa këram lajj nañu de kiñ dénk ADM Cheikh Issa Sall waaw nekkewu fi dara lu dul campagne laa la wax te mbuur tribune yéene kaa wàllum ndox mi lee demal ca banlieue ba kër yu fees tali yu dagg matériel yu yàqu Macky Sall ci fukki at yi lée def nañu kon juróom-ñaari téeméer ci ay milliards Lamine ba ne te heure bii daaw atu yàlla la Macky Sall taxawoon te Kër Massar googe def ko département naan saafara inondation yaa ngi ni lée xool leen tey la fa xew furaas daal di xidéen cadre Pastef yi day ci le témoin yéen a kaay waaw nee nañ Omar Gueye non ñii duñ sox rus ñii dañoo Macky Sall nag ñetti giraawaale la def yow indi sa terre def ci junni ak juróomi téeméer ci ay milliards mille cinq cent milliards autorail baa ngi nii ñetti atu yàlla gaare boobay benn ñaar en mbas corona baa ngi rey nit ñi la Macky dem jënd roppalaan gu bees tax juróom benn fukk ci ay milliards eh way Samba ñu ne deen ni waay dem jënd bato bu bees tax juróom-ñaari milliards ngir ànd ceeg ëttam di ndaataatal ak di gundaa daata ko noos ci biir diggante ville de Dakar ak nguur gi ak yenn ci ay mairie kay Alioune Ndoye Soham Wardini marché Sandaga ay Ndoye joxal madame marché bi Benno Bokk Yaakaar day waaw caution fukki millions ak juróom ci élection locale yi ñoom nee nañ d'accord nañ ca 24 heures yéene ñoom Abdoul Mbaye ak coalition jot na waaw waxtaan nañ ba juboo ngir àll ci élection locale yi de beneen opposition judd na ñoom Sonko Khalifa Sall PUR PDS nii ñoom Mamadou la doy waar kay l'observateur nee na police day dina gande jay naa bal day encore rapport bi lée ñu naan Jibril Mbay Faal moo plainte xale jigéen bi waa ñii lu leen a boole libération yéene kaa ne jay naa bal mi nga xam ne day moo càmmiñam frère am la te ñu garde à vue leen boole nag ak artiste bi di Jibril Mbay Faal wàllum defante la de vengeance ay mbirum porno har day taal jay naa day ah mais dañ ne da doon génn xale bi Jibril Mbay Faal waaw tey man Sénégal <laughs> Jibril Mbay Faalo jay naa bal de yoo frère am ba yoo police ba